di ñaan yàlla mu baal ñu xaq ñu ci topp bi jaahi rasulillahi wa sallallahu wa sallam ñu leen di jox ay kàddu euh, yoo xam ne rekk ñu war a jëfandikoo li nga xam ne moom la santaane yàlla mooy santaane yàlla lim ñu tere ñu bàyyi ko euh, addina bi damay wax ne li ko yàq mooy lan mooy sàngara sàngara ak carte ak torog mooy dorog dorog mooy sàngara sàngara ak kart ak njaaloo loolu mooy yàq àddina bi yëpp yëpp mooy lu bon borom bi ne wala yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne al xamru umul xaba'is sàngara mooy ndey yi ñaaw téef yi li ñaaw lépp sàngara mooy seen yaay sàngara moo jur lu bon lépp kon kuy tere dorog dorog dorog dorog ñu koy jàpp jàpp nañ leen ci dorog jàpp nañ ci dorog te sàngara moom kum neex nga ubbi di jaay xale yi jàng sax leen defal ay mbuus yoo xam ne yu ndaw la yoo xam ne dañ koy jaay jënd di ko jëfandikoo te sàngara Euh, lii naan la yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam kullu muskirin xamrun wa kullu xamrin xaraam nee na lépp luy màndal ni mandil nit rek sàngara la te bépp sàngara dafa araam nee na moom yonent bi alayhi salaatu alayhi salaatu wasalaam laanallaahu saaribaha yàlla sori na yërmandeem ki koy naan wa mustariha وبائعها وعاملها والمحمول إليه nee na ki koy naan yàlla rëbb na ko sol na ko yërmandeem ki koy jënd koy jaay ki koy yàlla rëbb ko ki koy jënd yàlla rëbb ko ki ko enu sëf ko yàlla sole na ko yërmandeem biñ ko sëfee kañ ko jëme ca moom yàlla sole na ko yërmandeem kon léppi sàngara sori yërmande yàlla la te bon mooy umul xabaayis lépp bon sàngara mooy yaayam yàlla wàcce na ci sàngara ñeneenti aaya te aaya yooyu leen bi mujj moo tax saxaaba yi ne bàyyi nañ ko bàyyi nañ ko mu xam ne dafa araam te dafa araam te li ëpp ci ne ñii ñaan ñii naan sàngara ñi ëpp ci ñoom foo fekk ku def ci mbedd yi euh, di def lu kenn xamut turu wa turu jullit lay doon bon ñi koy jëfandikoo ñi ci ëpp ay jullit la ñu tudde ooye seen bopp ay jullit la ooye seen bopp moom sàngara kon dafa jara moytandiku dafa jara wattu dafa jara bàyyi ëpp na jëfandikoo ba xanaa ne la yonent ne na yàlla rëbb na ki koy ñaan ak ki koy jënd ak ki koy jaay ak ki ko enoog ak ki ko sëf ak maanaam enu ak ki koy jëm ci moom kooku lu bon la loo xam ne mooy ni yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam mooy ndeye ñaaw teef yi kon sàngara mooy ndey ñaawteef te lu bon lépp mu ngi ca euh, gis nga moom sàngara baaxul fa ñu naane sàngara lu bon rek a fay nekk te it tamit na ne la ñeenti aaya mooy ci wàcc bu jëkk bi dafay ñaax booba saaba yi dañ ko daan naan mu ne wamin samaraati naxiili wal anaabi wal anaabi tattaxisuuna minhu sakaran wa risqan hasanan ci meññeenti tàndarma yi ak inab yi resin yi ci ngeen di jàppe am na ci ay meññeent yoo xam ne wërsëg rafet la wante am na lu ngeen di mandee ci moom waaw risqan lu may mandi ak wërsëg wu rafet mooy sangara boobu bu ay bu jëkk bi la beneen bi euh, ñu koy laaj yonent bi sallallahu alayhi bu ñu laajee yonent bi nag yàlla koy tontu yasalunaka anil xamri wal maysiri qul fihima ismun kabirun wa manafiu linnaasi wa ismuhuma akbaru min nafihima danañu la laaj sàngara ak euh, carte maysar lan la wax leen ne nekk na ci ñoom bàkkaar bu mag am na njëriñ lu néew am na njëriñ wante am na bàkkaar bu bari bàkkaar ba mu ëpp njariñ la ba ay yi wàcce ñii di naan ñii di bàyyi comme am na njariñ ñu naan ñu ne comme am na bàkkaar bu bari euh, nañ bàyyi bu ay wàccee rek di wax ci sàngara seen Omar ne allahumma bayyin lanaa fil xamri bayaanan saafiyan yàlla yal nañ biral ci sàngara biral koo xam ne gu bir la gu bir ñu xam ne sàngara dafa araam ñu koy ñàkk naan wala mu ñàkk araam ñu koy naan beneen wàcc sahaba yi daje di julli julli timis jot ñu jiital kenn pour mu jiite ba mu jiitee ñu ne say bala, mujang wala ku mu mën am rek benn sahaba la mu jàng faatee ba jeex mu jàng el kafiruna laa yee ca nekk yépp moo saf leen ñàkku leen a wax yaayal kaafiruun abul maata bu dul laa yaay mu ñàkku leen wax mooy rek dañuy jaamu li ngeen jaamu yéen da ngeen jaamu li lañuy jaamu ñun danañ jaamu li ngeen di jaamu euh, loolu bam jeex borom bi ne euh, si na amanu laa taqrabu salaata wa antum sukaara hatta ta'lamuuna maa taquluuna yéen ñi nga xam gëm ngeen gëm ngeen yàlla bu leen jegee te julli fekk yéen a ngi mandi na ngeen xaar ba xam li ngeen di wax ngeen soog a julli bu nee ba sàngara si wuri nga xam ne màndeetuloo nga soog a julli mu ne kon nag dañ koy daganal euh, ci lu dul waxtu julli waxtu julli ji jotee ñu xaraamal ko euh, loolu beneen ay wàcc ay bi nga xam ne nag moo wàcc mooy bu mujj ci ay maida borom bi ne yaa ayyuhallazina amanu إنما الخمر والميسر والأنساب والأسلام رجس من عمل الشيطان من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدك عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يا أيها الذين آمنوا يا ñi xam gëm sàngaraak maysar mooy kart ak islam ak sanam xara xërëm yi ngeen def di sànni yooyu yépp sobe la te jëfi seytaane la moytu leen ko ngir ngeen texe seytaane dafa bëgg a dugal ci seen biir bañante noonu euh, ak bañante ak te mu di leen fekk walis tudd yàlla ak julli fa ñuy naani sàngara kenn du fa julli kenn du fa tudd yàlla fen fekk walis loola loolu la wax ba ne fal antu mun taw na waaye dayte lu leen bàyyi leen sàngara hmm? loolu mooy ay ji ci mujj bu ko defee nag ma Madina saxaaba yi kenn ku nekk wanagam dafa sàngara dafa nekkoon muy naan rek ñuy naan rek waaye ba ay ji wàccee ba yonent wax ko Seydina Omar Omar lan la wax allahuma intahina allahuma intahina yow yàlla borom bi daytalu nañ bay nañ sàngara bay nañ sàngara mbet li ma dina fees ak sàngara suñu tuur ñu ne kontaan bi nga xamee ne yàlla araamal na ci ñun sàngara kenn dootu ko jege kenn dootu ko naan ñooñu ay jullit lañ xon bu defee nag ñun ñu ngi koy ñaan naan ñi fii koy naan bari lool tere nañ lépp affaire drogue yépp ñu ngi koy tere bi ci jàpp ni di leen ci alamaan di leen def yépp wax lépp waaye sàngara moom ñu ngi ko bàyyi rek wala antum muntahuuna loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla wax ci alquran yàlla wax may wax alquran mooy alquran wax yàlla la wax ko ci wax ko ci ci lan ci sàngara war ko bay dafa araam dafa araam kart ak sàngara ak njaalo mooy yàq àddina bi ku ci nekk nanga ko bay ngir texe yàlla na yàlla dégguloo topp looñu li mu santaane ci alxuraanam ji yàlla nañ ko topp hmm. affaire yi sàngara bi bi hmm. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وقال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لين نيو nuyu لين نيو لين زياره دي لين leen siyaara di